ami internet yu 24 actu yi bàkk ba jibatina dañu koy door rek Aminata Lô Dieng mi nga xamante ni ki tey jii ci altine ji dañu ko daal di defeere ginnaaw bañ ko jàppee woon rek ci li nga xamante ni moo di ñàkk respecté lii di ak couvre feu ca brigade gendarmerie bu Wakaam ñoo ko tegoon loxo rek niki aljuma ji ñu génn moom a frère am boobule moom Aminata Lô Dieng nag nekkoon na ancien ministre ci jamonoy Abdoulaye wadd dafa daal di violé woon rek li nga xamante ni moo di couvre feu moom ak frère am boobee ginnaaw rek bi bëggee jëndal li nga xamante ni moo di doomam lu mu lekk ba mu koy jënd nag vingt et une rek dafa daal di passé tax rek gendarmerie Wakaam daal di koy tegoon loxo moom ak frère am boobee ba mu demee rek dafa daal di mer ba futtu ba yëkkati rek ay kàddu jëme ci njiitum réewum Sénégal tax naka ñu daal di koy jàpp ba tey rek ci altine ji daal nañ koy defeere moom Aminata Lo Dieng diwaanu Touba ñu gis rek jamono ji askan bi am nañ jàqare lool ci faatu gi ak tegloo gi nga xamante ne ni tegloo na ko jamono ji ba tax rek daayira bi ñu tuddee xidmatul xadima daal nañu génne rek chiffre yi nga xamante ni amee nañ ko ah, ci 2020 bi jëm rek ca cimetière ah, Baqiya bu Touba buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay bi di Les Échos moo xam le ne ci 2020 bi rek am nañ lu 92 rek ci ay doomu aadama ci biir loolu dix 118 yi ay góor lañu 1168 nekk ci ay jigéen yoo xamante ni jenc nañ leen rek ci 2020 bii ba tey rek buñ sukkandikoo rek ci daayira boobu di mu Muxaddamatul Xidma xam la nañ ne ne ñi nga xamante ne nii nekk nañ ñu fay jenc jógewuñ fenn fu dul tuuba ak Thiès ak Diourbel ak Ndakaaru ba tey rek ci li nga xamante ni moo di lim bi nga xamante ne am nañ ko ci atum 2020 faatu gi rek li ko waral nekkul lenn lu dul paludisme am nañ ci 373 ak tension artérielle am na ci 297 accident ñi ngi toll ci 273 ñi amee diabète yi ñu ngi toll ci 83 ñi nga xamante ni dañoo am mort naturelle nga xamante ni dara dalu leen mi ngi toll ci 9915 boobule lim rek la ñu am ci atum vingt bi jëm rek ca cimetière yooyu lee di Baqiya bu Touba ki nga xamante ni moo di Ouzin Keita uh, nga xamante ni moo di Aïssatou Diop Fall ginnaaw Aïssatou Diop Fall bi mu xamlee ne ñi nga di ki nga xamante ni moo di Ouzin Keita nekkuñu ñenn ñu dul ñu perte moom Ouzin Keita nag nee na moom Aïssatou Diop Fall moo njëkk a perte ndax moom moo ko njëkk a invité daal di yëkkati rek yeneen i kàddu daal ko naqari amul ay vues te moom lañ invité mu am ay un million de vues kon nag moom moo xew moom Aïssatou Aïssatou Diop na nangu ne moom Ouzin Keita moo xew ci diwaanu Tambacounda daal di wax rek ci fièvre jaune bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko rek a ca Kidira bokk rek ci région wu Tambacounda jot nañoo am lu toll ko ñeenti cas rek ci épidémie boobee ñu duppee fièvre jaune ci ñi nga xamante ne nii rek dal na leen rek am na ci ñaar ñoo xamante ni dañoo ñàkk rek seen bakkan ci boobu boobule fièvre ba tax rek askan wi tiitloo ba tax rek jamono ji rek fièvre bi na muy def rek ca diwaanu Tambacounda tax rek danañ amal benn campagne de vaccination rek niki 15 février bi ñu dëtmal naqar bu tiis bu wàcc ci askanu Sénégal mu di maître Khassimou ture ginnaaw rek ba mu làqoo rek ndiki démb ci altine ji yamoo ko benn fan ci weeru février atum 2021 bi moom maître Khassimou Touré li ko faat du leen rek lu dul cancer ginnaaw rek ba mu ko sonalee loolu ci la daal di ñàkkee bakkanam ba dinañ ko jenc rek ndiki tey ci talaate ji yamoo ko ñaari fan ci weeru février ci diwaanu Touba équipe bu 24 actu yëpp di ko ñaanal suñu borom xaare ko ca aljana ya gën a kawe dañuy daal di jubali rek rek wax bi la yoon euh, ci Serigne Mbaye Sy Abdou ginnaaw rek ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko rek daal di koy jëm rek ci xeexum euh, daara yi nga xamante ni nekk na rek di am jamono ji ginnaaw bi nga xamante ni rek ministère de la femme et de la famille du genre et de la protection des enfants di Ndeye sali Diop Dieng ginnaaw rek bi mu bëggee rek génne xale yi nga xamante ni ñu ngi nekk rek ci yoon bi campagne boobu rek naat dañ koy lancé ngir li nga xamante ni rek moo di xeex ji rek di euh, covid 19 waaye nag kii di Serigne Babacar Sy Abdou dafa daal di wax ne rek autorité yi nekkuñ leen rek lu dul di xeex li nga xamante ne ni rek euh, moo di l'islam nekkuñ di xeex li nga xamante ne ni rek moo di jàngoro ji nekkuñ di xeex li nga xamante ni moo di euh, jàngalekat yi wala daara yi wala rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jàngale alxuraan waaye seen bu nekku leen rek lu dul xeex li nga xamante ne ni rek euh, moo di alxuraanul karim ca diwaanu Koki ginnaaw rek lakk gu métti métti gu ñu fa nemmeeku ndiki démb ca talaata ji ca village Guyar Dieng ci bu sukkandikoo rek ci presse Afrique xam ne ne sapeur pompier yi dañ doon xeex ak li nga xamante ni moo di lakk-lakk gi ba ay 13h30 jotee maanaam benn waxtu jàpp fanweer ci ay simili ci noonee rek la ñuy daal di soog a fayee li nga xamante ni rek moo di lakk gi village boobee nag mi ngi situé ci commune Ñomrelo sur la route de Kokki soriwul dara ak Mborom Diop environ 7 kilomètres de Louga tey jii rek ci àllarba ji ñi nga xamante ni rek ñoo dëkk rek ca boobu les dañoo amee njàqare loola ginnaaw bi nga xamante ne nii rek lakk-lakk googee daal daal ne jur rek li nga xamante ni rek moo di ay dégâts matériels daal di fay rey rek benn mbaam ak li nga xamante ni rek moo di benn xar buñ sukkandikoo rek ba tey rek ci presse Afrique la mu xam ne rek moo di benn jigéen moo doon togg daal di rek fàtte rek fay gaz bi ba affaire yi rek daal di explosé ba daal di jur nag yooyu les dégâts matériels lépp loo xamante ni rek ruusani waat na ci jëm ci moom le mbir dañ leen ko digtalaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar xibaar étudiants yi nekkee ca diwaanu Saint-Louis ca université Gaston Berger nekk démb rek dañ doon amal ab confrontation bu métti ak force de l'ordre yi ginnaaw rek ba njiit yi nekkee foofee ca université ba dañoo jël rek ab dogal ngir tëj lépp loo xamante ne ni rek restaurant la nekkee foofee rek ca université ba maanaam rek journée sans ticket loolee tax rek étudiants yi nag daal di mer ba futu daal di amal rek ab jàmmarloo bu métti ak force de l'ordre yi biir jàmmaarloo boobule bilan biñ ci am rek moo di am nañ ca cinq blessés yoo xamante ni rek ci côté étudiants yi la amee ak ay cas grave yu métti métti ba tax rek ki nga xamante ne nii moo yore lépp lu jëm ci coordination wu yi euh, di wuyoo ci turu Moustapha Diop daal di jël rek ab dogal ne benn cours rek dootuñ ko commencé waat ginnaaw rek boobee dogal dakkaluñ ko mu di journée sans ticket nga xamante ni rek moo di Moustapha Diouf moo yëkkati yooyu les cadres moom mi nga xamante ne nii moo coordinateur étudiants yee jàngee rek ca diwaanu Saint-Louis. ñu wéyandi rek wax ci beneen mauvaise nouvelle boo xamante ni rek Sénégal daal dina koy amaat mu di nag génnuk àdduna Abdoul Aziz mbay nekkoon ancien ministre de la culture mu nekk na koo xamante ne ni rek kenn dootu ko laajteeti fii ci mim réew moom Abdoul Aziz Mbaye mi nga xamante ni rek moo ñàkk bakkanam ndiki démb rek ci àllarba ji ginnaaw rek ci benn courte maladie bu ma amee woon équipe bu 24 actu yëpp di jaale famille yam di jaale tamit l' ensemble du gouvernement du Sénégal ci fàttali rek Abdoul Aziz Mbaye Ndiaye mi ngi gane woon àddina niki 18 octobre 1954 ci Dakar daa nekkoon na nag diplomate nekkoon tamit homme politique franco-sénégalais nekk ancien directeur du cabinet du président de la République Macky Sall lors du remaniement ministériel du 29 octobre 2012 ñu di ko ñaanal rek suñu borom jéggal ko daal di koy xaare rek ci aljana yi gën a kawe vidéo bi nga xamante ni mi ngi nekk rek di wër jamono ji réseaux sociaux yi mu nekk nag vidéo boo xamante ni lool képp koo xamante ni rek gis nga ko mu di benn cri de cœur mu di Faa Mbay Mbaw ay atam rek toll ci vingt cinq ans ginnaaw rek ba mu nekkee di dund ak benn maladie bu métti métti ba tax rek ku ko xool rek ci image bi sa yaram rek day daal di daw moom nag mi ngi pesé lu tollook trois cent kilogramme rek moom lay pesé jamono ji ñuy ñaan rek képp koo xamante ni rek gis nga mile mbir nga daal di koy jéem a jàppale ndax soxna si rek li mu nekk rek di dund jamono ji métti na lool te li nga xamante ni rek moo ko war a faj mu di frais d'hospitalisation yi ci quinze millions rek la daal di toll ñuy ñaan rek képp koo xamante ne nii rek yaa ngi gis bile vidéo nga daal di rek jàppale soxna si ngir feebar bi nga xamante ni rek dal na ko mu metti lool addu ci leneen ki nga xamante ni rek moo di leaderu Pastef bile di Ousmane Sonko ginnaaw rek ba ñu ko daal di déposé rek ab plainte ngir viol ak menace de mort boo xamante ni rek ma nga ca section de recherche bu Colobane benn tur ba dañu ko abrégé ASAR rek lañ ci mën a jàpp buñ sukkandikoo ci journal bi Les Échos mi ñu xamal yooyu les xibaar ndaw si rek dafa daal di janoo ko enquêteurs yi xamal leneen ne moom dafa amee kersa ginnaaw rek bi muy gis yi nga xamante ni moo di ay viol yu répété jëm ci moom ndaxte kii di Ousmane Sonko buñ ko defalee lii di massage bu paree rek dafay exiger ay faveur rek sexuelle moo tax rek moom xale bi daal di def boobulee plainte ay atam nag mi leaderu Pastef bile dafa daal di xamle ne boobu les plainte ñu nekk di wax rek jamono ji ci réseaux sociaux yi moom gisu ko benn yoon kon nag mën nañoo jàpp ne moom Ousmane Sonko dafa daal di ignorer l'existence su plainte boobule. ki nga xamante ni moo di Kumba Gawla Seck nekk artiste musicienne bu kenn dootul présenté ci fii ci réew mi ndiki démb rek ci alxames ji dafa daal di génn rek ngir xamle ne dafay daal di bàyyi li nga xamante ni moo di musique ginnaaw rek ba mu amee rek ay tolof goo xamante ni daf ko daal di ah, dàpp te moytu ko rek muy continuer li nga xamante ni rek moo di ah, way yi ba tax rek mu daal di génn rek daal di def ab vidéo ngir di alerter ñi nga xamante ni ñoo di ay fansam ngir xamal leen ne dootul mën a teg continuer ndaxte dafa am ay jafe-jafe rek ah, ci baatam bi ginnaaw rek ba nga xamante ni moom génn na ngir xamle li ni mel waaye itam daal di nag sensibiliser waar rek ñi nga xamante moo di askan bi ñu gën a sàmmoonteeg mesure barrière ñu mën a xeex 19 ci noonee rek la chanteuse rek di remercier ki nga xamante ni moo di yaayam Fatou Kiné Mbaye ak euh, chef de l'état di Macky Sall ñu di ko ñaanal rek moom Coumba Gawlo Seck yàlla suñu borom daal di koy may wér ba mën a daal di dellu rek ci li nga xamante ni rek moo di liggéeyam bi di musique wàccug liggéey Serigne Moustapha Sy Djamil di doom ci Serigne Mansour si borom daara ji daal di nag génn àddina ni ki démb rek ci alxemes ji ñu di ko ñaanal suñu borom oyofal suuf ci kawam daal koy koy xaare rek ca aljana yi gën a kawe ñu àddu ci leneen wax bi la yoon rek ci Assane Diouf ginnaaw rek ba ñu ko tëjee woon kaso mu daal di nag am liberté mu démb rek la njëkk a def première sotteem foofee ca Sen TV ci noonee rek lañu ko daal di posé ab question di ko laaj rek tànkam boobee nga xamante ni bii ah, déggoon nañ ne doon na métti rek ca biir ah, prison ba moom xam le ne ne l' administration pénitentiaire bi moo ko daal di damm ginnaaw rek ba mu jëlee rek ab buntu bu toll koy sànni rek ci tànk ba ca noonee rek la daal di dammee ba tax rek muy ñaan procureur de la république ngir mu xoolaat bu baax a baax doxinu euh, l' administration pénitentiaire yi ci biir prison ndax nee na foofee injustice rek la ñuy daal di doxalee ak ña nga xamante ni bii ñoo fa daal di nekk ki yëkkati rek yooyu le kàddu moo di euh, Ousmane Diouf benn ñaawteef bu am ca diwaanu Thiaroye euh, sur Mer benn nijaay rek bu doon violé ki nga xamante ni moo di ab jarbaatam jarbaat bi daal dinay xamle ne nijaay ji daal ginnaaw ba mu ko joxee rek ab kaasu te ba ko naanee rek ci la daal di gëjee xam rek lu xew ci noonee rek bi mu yewoo la daal di gis rek yëre yi daal di euh, am ay tache sperme ak deret ak li nga xamante ni moo di méttitu biir daal di koy dal ci noonee rek la daal di xam ne kii di nijaayam ji daal def ko daal di euh, violé analyse yi nag daal di na koy dëggal ngir xam ne ne ndaw le dañu ko daal di violé waaye nag nijaay ja jàpp nañ ko ba daal di koy euh, defeere mu nekk nag ñaawteef boo xamante ni rek ma nga xewee ca diwaanu Thiaroye sur lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di dajalay doon ba ëllëg a jàmm